ahousubillahi min asheytaani irajim bisimillahi irahmaaniirahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi noo ngi leen di nuyu di leen siyaare noo ngi ci juróom fukkeelu jotaay ak ñeent ci téerab xalim ak leer noo ngi ba tey ci xasida ak wakaana xaqan di wax cant gu rëy gu ci Sëriñ Tubaa di sant boromam xasida gi Sëriñ Tubaa mi ngi ci sant boromam ci teraanga ju rëy di ko sunu borom teral nee na sunu borom yow muy def lépp lu la soob teral nga ma ci say teraanga ba lépp loo xam ne bëgg naa ko ci yow mu dal di am akramtani ikraamu man macha faal wa kullu ma arattuhu min kan faal loolu teraanga ju kawe la tappa ju gaajo mënu ko weesu day mel ne mbir yi day mel ne mbir yi yàlla sàkk yépp dañoo déglu sëriñ bi lu mu ci soxla rek doola daal di gaaw jëm si ci moom moo tax am na ci bayit bu muy waxee ne kon fa yakun moo may wàmmatal samay aajo sama aajo yi ma am ci yow sunu borom kun fa yakun mi ngi may wàmmatal lépp di mu ko indil yaquudu li kun fa yakun xaaji min ka bila xiqidin wala ta xaaji wax jooju dikkoon na ci Minanul Baaxil Xadim lépp lu mu soxla rek kon fa yakun indi indil ko ko sëriñ baa ngi leeral ci xaside gi ne moom yonante bi salallaahu alayhi wa sallam moo sàkk muy ab liggéeykatam nee sunu borom yàlla nga dolli jàmm ak teraanga ci yonante bi salallaahu alayhi wa sallam moom mi nga xam ne moo sàkk ma doon ab liggéeykatam loolu la wax ci beneen barab ne yonente bi salallaahu alayhi wa sallam moo ci sunu borom mu jox ma darajay ma doon ab liggéeykatam ak darajay di jaamu yàlla muy abdullah raama rasulullahi min ilahi kaw nii xadimahu wa abdullahi ñaar yooyu nag ay ay yu kawe la sonn gi mu sonn ci jaamu boroomam ak wéetal ko sonnit ci liggéeyal yonente bi salallaahu alayhi wa sallam sopp ko lool moo waral yonente bi salallaahu alayhi wa sallam sàkkul ko loolu ci sunu borom ba tey mi ngi wax ci xaside gi ne sunu boroom bégal na ma mbëgte mu sax ci ne xaritub yonente bi salallaahu alayhi wa sallam laa di ab soppeem di ab liggéeykatam farraxanil akramu tafrixan yaduum bi na ni wa xibun wa xadim loolu it mbégte la ci yonente bi salallaahu alayhi wa sallam moo tax nee ne bégal naa ngën ji mbindéef mbégte mu sax ci ne man xaritam laa soppeem laa di ab liggéey liggéeykatam faraxtu xayral xalqi tafrihan yadum annii lahu xillun wa xibbun wa xadim boobu ci nooru daa dañ la ko wax mu toll ba léegi nga xam da ko wax ci wakaan xaqan loolu li tolluwaay bu kawe ndax moom sëriñ bi daa am mbégte ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam moom yonante bi sallallahu alayhi wa sallam am mbégte lool ci sëriñ bi ñoo bokk bëgg ñoo ko bokk bañ seeni mbir du tàqalikoo mukk loolu lay feddali ci bayit yi ne giñ naa ci yàlla ne man xaritu bi yonente bi sallallahu alayhi wa laa di ab soppeem ba faw lu ma bañ moom bañ na ko aqsamtu billaahi inni lin nabi abadan xillun wa xibun abaahu yaa baahu waaye mu dellu ca wa mu tekke ne Moustapha mi nga xam ne mooy sunu yonante di ngën ji mi def dane moom mooy sama xemmem teef ci lépp lu mu bañ ma bañ ko loolu rek day gën a firndeel firndeel li ma wax ne dama suruuri li suruuri ahmada maanaam sama mbëgte jaxase naa kook mbëgteem yonante bi sallallahu alayhi wa sallam lu mu bëgg ca loola rek lay nekk ma ni lu ma bëgg loola moo di bëggam duñu tàqali ko mukk kon noo ngi am foofu wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.